ci jàmm rek. maa ngi ah, yaa ngi kon saal bi kon. maa ah, loolu moom da ciy baax yenn saa yi nga xëy xaw noppal yaram bi toog dallu toog ak koor gi noonu ak naaj bi xam nga da tàng temps yi fan yi si li li gën mooy li nga demante ne mooy sa ki nga xamante ne mooy sa yaay. Mm. waaw parce que doom ak yi ak waa waajuram daanaka bu ñu demee doom bu demee ba màgg ba sol daal bàyyi mu jot ko. wala mu mot a am mu doon koo xamante ne daanaka bu ñu ko mayee jëkkër mu mën a sëy warul amati nëbboo ki nga xamante ne mooy baayam ak yaayam waaw tey umpale woo kër gi lu ma fi nekkee rafetul rafetul wu ma ko samay nawle sax rafetul ñu ko dégg nga maam damay xëy sax dem sa jàkka ja di di julli ji ñu may xoolee bët yoo xamante ni kilifa gi chaque jour matul kilifa wala dara day nekk ci kër ga coow lu guddi coow bëccëg xam nga loolu neexul si borom kër. donc kenn toog ma ku ki nga xamante ne mooy sa mag ji muy fàllu. sama taabu góor bi. mais Ah. li nga def sa bopp bi nii. lii sama choix la nii rek yaa ma gën a xam. xam nga naa choix yéen kay façon yi ngeen jël man xamuma yan façon la ñun de suñuy jamono yii moom amul woon. seen jamono nga seen jamono yii daa xewoon boo yooyu xanaa a bon lii bëgg lépp ci bëgg xale yu xool. xale yi fi kilifa. Ah, man xam ne xale yu jigéen mooy loolu moom sama affaire yooyu bokk si moom ay affaire la xale yu jigéen. yow Fallou xale yu jigéen buñ bokkoon sa affaire ba doo mabal Sénégal <laughs> ah dama tiit yow li fi ñëw di la seet. bu gisee génne luy des ci réew mi. te hmm. eh, samay xarit lañ nii rek. Hmm. xam nga nit ñi maa bëgg. looloo tax quoi. baax na en tout cas daal gën a la am gën a la am jom xam fooy teg sa tànk. Hmm. waaw ndaxte àdduna bi moom daa compliqué. yaa ngi gën a xam. moom mooy taw moo juddu doon góor taaw te taw dañu boo juddoo la nga war a say say raq respecté say say waajur rawatina ki nga xamante ne mooy sa papa waaye yooyu yëpp fàll loolu lépp nekkul si moom. te tur bu seetu laa ko tuddee dégg nga maam dénkoom jëflanteeg man lay def fii si kër gi su waxee li may wax mu jël sànni fële jël ay waxu yaayam teg ko sa kaw te moo ak yaayam yëpp maa leen boole yilif man borom kër gi ginnaaw yàlla maa fi indi mu moom mu juddu si kon damaa war a respecté moo respecté defu ko dem na sax ba si biir dafa yaakaar dama laa jël teg si si te defuma ko da yow doon jigéen te ku ne xam na ni jigéen matul amul doole man yërmande jigéen moom nga war a gën a yërëm ak góor nga xamante ne magum jëmm la day dem mën a demal boppam yooyu yëpp na da koo def di lu ne la may def si kër gi lu ne ba fan yee rek la ñëw fii doon kërti kërteeg man may may baayam loolu rafetloo ma ko waa koñ bi rafetloo ma man sax damaa rus a génn sa jàkka ji dem di julli ji parce que bu ma demee ñoo ngi may xool matoo kilifa imaam sax bu ñu koy xëccoo ñi ma nga parce que dañ ku mënul gérer sa kër doo gérer jàkk te loolu lépp moom moo ma ko teg moo ma teg comme ñëw naa fekk la saal ma bëgg mu waxtaan waxtaan seeg yow comme moom yàlla def na yow xaw ngeen a juboo tuuti xañ na sax cër bi yow jox na la cër comme man joxuma cër man mi bàyyam yow jox na la cër yoo xamante ne boo waxtaanee moom dégg nga maam xanaa a baax rafetlu ma ko ma nga màgg ñu lay nettali naan moo fi defoon lii wala moo fi waxoon loolu loolu góor gu nekk lu ko war a daw dëgg la waaw man nii toog kenn du ma fi xas ndax kenn xamul ma fi dara mhm. waaw ni nga nekkee daal continuer ko yaa ngi joxe dépense lu warloog man yaa ngi koy def xanaa di la ñaanal yàlla dool la sutura ak wërsëg. yaa ngi koy xam da nga respecté sa baay moo la jur. dëgg la ah sama baab moom mooy loolu. la xam ne moom moom moom moom mooy ñàkk kii rek ah ma ñàkk fula nag de neexul da dégg de dafa jekkul ñaan sa papa dafa ñàkk fula mi moom daa ñàkk fula yow sax xam nga loolu. ah xaw ma dara bu ma dugal. <laughs> ah xaw ma dara xaw ma si dara. léegi sa papa. léegi naa léegi da nga kaa ragal carrément. yii ko coow laay bañ. ah man xuloo damay damay feebar. kon xam nga yaa ngi doog a ñëw kon nangu nga. xam nga ne léegi moom peleñaa. Mm-hmm. léegi nag moom jaay peregam yooyu noonu lay war a arrêté jël ko yemale ko si mbedd mi moom moom sax bu fekkoon si mbedd mi la ko génne am problème mais moom si kër gi rek lay jaay pereg bu génnee si mbedd mi danaan mu ne xarum yar mais bu ñëwaatee si kër gi mooy loolu noonu commencé indi beneen problème moom daal bëggoon nit ñi nekk si jàmm dëgg la papa dégg naa li nga wax. waaye mhm. dafa fekk ni kilifa boo demee ba nga ni kilifa nga. Mhm. da ngay def kilifa man yaa ma fekk ma toog nga waxal man papa ñaata at ñu ngi ci kër gi. Mhm. xooloo ba xam ñun xiif nañu xooloo ba xam mar nañu xooloo fu ñuy dugg xooloo fu ñuy génn dangaa yaakaar ne yow toog dem julli ji ñëw toog moom sa bopp donc nga yor sa xaalis sama yaay xamul foo koy dugal say doom xamul foo koy dugal. xaalis bi nga ya, yor jamono ji nga toll di yor xaalis yépp boo ko tabaxoon heure bi duñu luyee ya. mais dangaa nekk moom sa bopp beneen bi mooy fàllu sama yaay bi may nekk ak fàllu ci kër gi sama yaay buy yar nga naan sama doom la sa doom la ku yar sa xar kan, ba mu màgg balaa bëgg kenn yow lay njëkk a mbëkk yar ko pour cadre fàllu man sama yoon yëgu si yow ya, it sa moroom yi doo songoog ñoom sa papa rek ngay songoo yaa naan sa papa rek nga mën wala kan? doo xeex si mbedd mi kan man du ma xees mbay man hmm. ah sama morom sama morom dañ ma ëpp doole. Hmm. loolu nga yaakaar sama papa bu xanaa ma ne mosuma kaa song moom moo may song nii rek di jëm a garaaw garaawlu su ma ko laalee mu ne ngalañ amul doole. yow it coow waaw bàyyi jàmbur bi daal. en tout daal moo gën nag nga wax si leneen daal gën nga wax sama waxi papa. big